تجفل مداجي في ليل جنوب بومو ناسينا سلمى وليلى بالبصارات تجفل المداجي في ليل جنوب بومو ناسينا سلمى وليلى بالبصارات واسمع برزت فاسمع برزت ليلى بباجتها أنا توالى إلى مولى بتاج ينسون ليلى وسودا في القيام مو مستانسين بأسكار الوغيات ويزوم آدسهم سكر مغن نافين سمد لا سكرين ولا في المقالات المساء يا والكرامات أرجان بيت الجميل قومي أربعة yaay wastaxsidun yaa tul wilayaat ñëpp def ni nu màggal maam Cheikh Ibrahima Fall suntulu joom tawil mbaado saaro wa wasulatun an xooxin billi saaraat tariqatu takaburi bi azan min almaridi wa an wa alxururaati tariqum qaswa ilaahi doona awan ma alusuli lati tanfiro naati min tawbatin quddimat aw fi rajab ma إرسال النوام بالقناة وساد وساد وزاد وزاد بكل فان مدور ما أتوى كل صبر كل زاد يعاب نفسي وسكر بالقضاء ترك الجبات إلى آل البريات طريق أم خزرة جد واسما لابد من نار أرباب بالإرادات ومقتدنا وما يدري إلى سفر منا دليل كسيف في الفتات وساد وخطقا وزاد وزاد ووتقا وزاد وزاد ووتقا màggal sayyiduna muhammad bisikila jalaala min almataayaati maati laliyaati wa ruqatin wa iqwaam lahu imamun maal wafaay bi lu xet fi lu xoowaati sëriñ bamba nee na sëriñ bamba nee na sëriñ bamba nee na wal kullu min ulati saadaat ratabir yakfil murida maridan saqawayaati kullu min alqawmi tayqun daalimun waribun min murabin beskaaril waayaati min muraqin biyaani wada abadan min muraqin muraqin bil isaaraati kullu qadirun بأدواء القلوب من يكفي المريدين أنقى والسقاوات كل الكريم تقي زورا وسخا يدي لزية في كل البريات من يقدف مين مقل باي سرين سالم بك كل يلا يلا يلا يا مدام yaaral taxawal fii ñu la dogee ñu ngi ñaan suñu borom guddal sa fan ndigal jib na ko fekk fii jox ko àddee Seydina Muhammad tàggoog ñàkk na ko ñépp jox ko àddee Seydina Muhammad nan la jox àddee ndax guddi gii guddi yonent bi la nañ jox addi Seydina Muhammad kii naan jox ko xamoo li xew xam li xat yaynin xalbi sairatan kama yasaidu ma taftala kinayati يجد أن كدوي سمس ويسنا يسمع كل زاز سنارات يجد عن كل كون إليك المساء نور نسيم رسي ريم الخيوبات يمون القلب يمون القلب رينا قد النسوى وما قاتلا سوري النجاسات أولئك القوم لا يخشى جنيسهم إذ يسكون المريدين السعادات توبى لعبد مريد صادق له مجل برم توبى بقدمة أو بحب أو هديات نار بحب رسول المستوار تبا سرى عليه الذي يؤتي المسيات نار ساعتي كل ساعتي بتوبة وبإسلام إلى مالكي قد جاءت بالمصطفى تنصر البرياتا بتوبة وبإسلام إلى مالكها قد جاءت بالمصطفى تنصر البرياتا بتوبة وبإسلام إلى لكل من يتقي النار بتادا ووالودا وصراط المستقيم لنا فكل ما نفعه لقد سقادا ووالودا وصراط المستقيم لنا فكل من عقل لقد سقادا وإلى الذي لا ريب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نار البتات فإنه أورة من فاق من شكرا حتى يفوز لدى المولى بجنازه بالبصرى وقبتاجها ومن يلازم يضرب دار نزتوى مع التدابر يسر بسن ومن من الفرقات متصلا فإنه صدوى كفر رسلاتا قد صدوا أن أسياهم تودي لا سبيل ساهليا فاتي بسسادا سنم وكبر واسرار على الاحبار وبالدنيا تما دون الخلقات كسات دو يقيني وهو سعد سواه وسبوا من نفسي امتدادا نملسي جانا مثل جلال خلقنا من قرورا للفن لا والملاس لنا دنيا واخرة في كل قبلنا من غديات من مجير سفي ناصر وسر الإثبات فلاه فبدمي هنا وقدا لخيره بغدرا بالبريات يا أكرم الخلق إني خادم لك ما أحيا بمجد وساب من قصداتي والرسالة دنيا التي قدفت هي تسوينا ساب نبياتي فلمتدهتك يا مولاي متقيا من كردا بدما تنور الصلاة على كلالي ورزام غير الصلاة جد السلام النياء المسيات جارا مسيح مسمى جارا مسيح مسمى جارا مسيح مسمى إسجيبت مسمى لا إله إلا الله la ilaha illallah yaa tabax la ilaha illallah la ilaha illallah ku sopp maam Cheikh Ibrahima Fall Moustapha la ilaha illallah la ko faal baabil muridina góor ñi doo seen morom la ko faal babi muridina ana ñu bëgg maam seen Ibrahima Fall góor ñu doo seen morom Lamp Fall babi muridina ana Baay Faal yi góor ñu doo seen morom la ilaha illallah fa la ilaha illallah alaw la ilaha illallah fa la ilaha illallah ya baax lay lay la lay fal illa la lay lay la la ya baax lay lay la lay fal illa la màggaleen maam Cheikh Ibrahima Fall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 yu gën loo la ilaha illallah maami sëriñ koso bàkke baax Seex Muntaxa mooy la ilaha def leen yoonu màggal Seex Moodu Muntaxa yaka ba kamal fa la ilaha illallah la ilaha illallah Sëriñ Basiru Mbàkke Seex Awa Balla mooy isamam fo dee jaam ñi fan ne la naka baax la la ilaha illallah doole fal ba ngërëmu Sëriñ Basiru Mbakke si xaw a balla mooy sa maam pour su maando day sore la ilaha illallah seexawa bala baax seexawa bala baax seexawa bala baax yaqulu de nay rasul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 bi tey wal gis bi wa inni sëriñ saaliw lil xaadatu ujuru wal masaaliyo bi tey wal gis bi wa inni ku sopp sëriñ saaliw lil xaadatu ujuru wal masaaliyo bi tey wal gis bi wa inni sëriñ saaliw yow Abdoulaye xul bi silaay am dan lilaay bëggal di kaan naa sëriñ def ni nu màggal sëriñ Saaliw Mbakke mu ju tudd yàlla dokka moo war a jiitoo ay sëriñ Saliou Mbacké lu jam tàmbaleeti la ngay def barkeel ku sopp sëriñ na ñëpp def ni nu màggal sëriñ Saliou na ñëpp def ni nu màggal sëriñ Saliou sëriñ Saaliw ay Seex Bamba tey jii ci xarnu bi ba Seex Bamba moo nan dëgg ko waajire ki lee yor di koy boole bi Mustafa alayhi salaatu laay moom ñooña ak ñale nabiyu jilaay dooreey sëriñ bi Mustafa alayhi salaatu laay moom ñooña ak ñale yal na ñëpp am jàmm yal na ñëpp am jàmm yal na ñëpp am jàmm yàlla nañ ko teewe déwén yu bari di ndokkeel sunu ndijaay bu baax sëriñ Mahmadan Fall di ci teg sëriñ Modou Fall sunu ndijaay nga xam ni moom sama ndijaay la bi bis bi jege see rek laa dem place am keroog fa laa xewloo ñuy waxtaan ndeysaan bu baax lool bëgg ma ba ba may toog sax naan naan naan nijaay daan xanaa xanaa jàngat bi jàngut yàlla tax lan la fi wut te gàmmu gi ñëw man ko nijaay damaa banque damaa bëgg xaalis mu yëkkati xaalis bu bari daal di ma koy jox bëgg ma lool di ma conseiller yàlla rek tax bis bii yow bëgg Serigne Saliou xam nga ci dara am na ku nekk fii ci kees rek ni ma damaa bëgg nga ñëw jàngal ma bis bi ni ma boo ñuy naa def lim sàngam ma ne boo ma doon jox milliard bu ma ñëw ci yow feeg maa ngi noyyi tubaafaal bu xeer bii lay ñëw su ma demee su ma demee ba jàngatuma fi sax mu ñëw toog nekk jàng ma jox sama addi waaye gàmmu gi moom insha allah ci kàttan yàlla fii laa koy def di siyaare bu baax sëriñ gànnaar Masere Maxtaar maa ngi jégalu ci jàngan yi boo gisee ma jàngee nii damaa bëggoon a yëngal gaañ rek yow boo ñëwee li yonent bi li sëñ Tuubaa wax yonent bi di nga leen ko wax moo tax ma jaar foofu di siyaare jëm ji bi tànn ju toog na ñu koy wax sëñ Aliou Sow nga xam ne sama nijaay Moodu mi moom ma boole woon moom keroog bi ñuy ubbi jumaa ja ne ma ca dëkk ba ma dem fekk sëñ koso moom sëñ Muntaxa boobu léegi daf noo jàpp te yàlla rek tax dinu woo dinu jàngaloo xasaay yi dinu teral dañ ma nag ñun ñoo war a jéggalu ndax bi ngay bàyyi kenn doyalul waaye lu ñëpp bokk lu ca waay am daray doy te tuwar fa kala macha allah ren ku ne gis na programme bi ni mu demee yàlla na yàlla xeeb dolli di santaat bu baax sunu waajur yu baax yi toog toogal fi sunu bàyyi Serigne Bara Fall yàlla na yàlla guddal fanam Pape Abdou Fall nii toog feggoog Pape Ousseynou Fall sunu bàyyi Pape Cheikh Dieng toog nii ak njaboot gi yépp feggoog Serigne Mouhamadane Fall yàlla na yàlla guddal fanam ak rakkam yépp Ablaye Ndiaye jëwriñ ji sës ci moom rëkk te rëkku ko xel wam doon daw ba fi alaaji ndaa may nekk ba fii may waxe yow soppiwu ko responsabilité engagement bu mu jëloon moom la continuer ci ginnaaw magam ju baax ji yàlla na ànd bi yàgg Pape Mama ak xale yi yépp ku ci nekk ci réew mi ak ku nekk bitim réew ñoom ñépp yàlla yàlla guddal seen fan noppal nan dan siggal nañ ko sagal nañ ko jiital nañ ko lu mu joxoñ foofu la ñuy jaar di santaat nag bu baax xarit yi ak wóllëre yi ni ñu koy waxee saa su nekk boo nee xarit yi wóllëre yi boo ko tegee ci loxol Talla Samb mi nga xam ni doom la ci kër gi di doom ci alaaji Ndaama dina àgg ci ñëpp alaaji Samba Fall Mbuur ak njabootam gépp di santaat bu baax soxna yi soxna Kumba ak ajaratu Dior Gueye waa kër sunu bàyyi Modou Mbay ndey Mbay ak Ngayta Mbay ni làmp def xaadim bay def ko ci ndigalal bàcc ñoom it ñi ngi teew waaye ñi nga xamante ni si ñooy boroom kër gi ndax kër bu neexee jigéen a ko yor ki njëkk ci kër gi te yàqu ko ajaratu ami jeng dan yàlla na yàlla guddal fanam mook daba sàmb ak nafi mbay ak seen rakk yi topp seen ginnaaw yépp di santaat bu baax ajaratu ngoon a gay ak maam sanu ak gan ñépp ñu ngi leen di dalalaat jàmm di leen sant di wax nag ñu ngi jëm ci programme bi werekaanu Serigne Touba ku genn ku kenn dootu présenté ci yoonu murit koo xamante ni sii dikkam gii fii tey Baye Aliou mbay nga xamante ni sii mooy sunu conseil di sunu baay di nu jubbanti di nu gàgganti di nu dugal nee na Baye Mame Balla Mbaye mook maay Modou mbay ñoo bokk ndeeg Baye mi ngi ci dëkk bi kon moom tamit ñu ngi koy nuyu di nuyu ak njabootam njabootuk